ku la sañseel tey. Euh, tey maa sañseel sama bopp yàlla dogal na lool. <laughs> Eh, tusi bi rafet na maa sañseel sama bopp. mami tourné ah? nii ci lumière bi. déedéet tey du ko braan. mami tusi bi rafet na trop magnifique. yaa ngi génne sa bopp. tey maa ngi génne sama bopp. c'est pop waa génération uul gi. <laughs> Mamadou Ndiaye waaw ba aussi ñu koy ngénte Ndiaye Ocass. Euh, Ibrahima Cissé new fashion. waaw new fashion dañ moo def li mu ne. balaa balaa gis nga rafetlu new fashion la Ibrahima Cissé. new fashion c'est bon. mukk ci àddina mu ngi mukk ci àddina. mais toi tu exagères Pape tey maa ngi woon niroo couleur exactement. waaw sa nijaay maam Modou Joxaane rek. <laughs> waaw sama nijaay la de sa nijaay dama sonal. sama nijaay la de nijaayu Xadi. maam Modou Joxaane Joxaane couture. maa la wax nii waaw nijaayam la nijaayam la. <laughs> maam Modou fi mu génn baax na tonton fi nga génn baax na. seen nijaay maam Modou daal léegi nii bul bës. bul laal voilà tournel en direct. tournel en direct yow kii. kamikaze bi Chanel. tiga dege <laughs> lañu man ma sayeer ak man daag ak ma biram kumba. ah Mandag ak Massaye. waaw 10 juillet 18h la solution. ah Adji Thiam moo génn fii et puis make up bi Khadija Baye Modou Mamour Jali ak Fatou Mbaye ak Fatou Mbaye. ah <laughs> ok ñu xool sa sañ sa desal kaay. ñu xool sa sañse ok ok dañ koy euh, filmé bu ñuy filmé moo bi baax na ku génn fii Khalifa Mbergane rafet borom lii faat bésal kaay ñu xool la defaral lèvres yi mami kaay bésal day defal lèvres association Tigga association Tigga Dégé pourtant am nga tuuti Tigga Dégé am na maa femi ñëpp a ñam ci maafe bi tonton Guèye mi waroon naa ñëw ñu gis maafe moom it. Bessél kaay sa rouge nice na wuu tey baas comme d'habitude rek Xaadim Kase moo fi jaaraat mais tey baas ah mais gis naa la yow it mais tey yéen xanaa dafa ku ñuy takk bii mbaa kuy ngénte. li takk moom yaa ko ah? ngénte li moom ma la. Ah, la waar de rouge bi Xaadim Kase la ma koy jaajëfal comme dab rek tay bi. bijou suñu mag ju baax ji sama mag ji nga xamante ne saa su ne dafay bëgg ñu sàjj moo jaar ci bijou tey na Grazélia laa takk hmm? moo fi jaar comme dab rek waaye yow tamit euh, xale bi de muy ma ñu wane suma ay bijou aji ca ku koy moom rek la nopp daa jara nopp nag dafa rafet ah? suñu mag jooju dafa rafet te baax da dem Ndiaye waaw suñu bijou rafet na suñu na yow tamit <laughs>